في السر والجهر يكون مقتدا هو الذي هاجر للمدينة بأمر ربه فصان دينه وسيلتي لمالك الرفيع محمد خير الورى الشفيع وآله وصحبه النجوم القاهر النفوس والرجيم هذا وإني اليوم يا وهاب غيرك في الدارين لا أهاب وإنني يا بر يا كريم داع وعن شكرك لا أريم منذ جذبتني إليك يا معين عناية منك إلي لتعين فقمت مجذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما إليك أمري مهاجرا لما لديك ثم إليك لا إلى سواك قد سرت لما لم أجد شرواك فجدت لليوم بخير منني وقدتني إلى اقتفاء السنن من بعد ما كاد امتداح الناس يدخلني في شرك الخناس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 ndigalu suñu Moustapha Diakhaté xaadimul xaddim xamle jumaay fii ci Touba Sam yi Sëriñ Abdou Latif tey jii ñu fas yéene ànd ak yéen Saxum Touba xamle jumaay ci dëkk bi lii nag di liggéey boo xam ne di liggéey boo xam ne Saxum Touba TV moo ko jël féetale ko boppam di ci liggéeyal Serigne Touba ci dëkk bi waaye ci ndigalu suñu Moustapha waaye ci ndigalu suñu Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit kon ku bëgg a xam liggéey bi toppal Saxum Touba TV seetu murit yi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 julliwaat yi Moustapha sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di ndokkeel ci barab bu tedd bi ci waxtu wu tedd bi waaye ci bis bu mag bi tey dil nañ suñ baaxoo dajee di fàttaliku suñu mbirum diine ak lépp lu ko yéwenal tey ñu taxaw ci ponk bu am solo muy ponk bu lislaam te muy asalaat di julli bokk ci lenn ci ponk lislaam yi nga xam ne jullit bi ak jullitam munta mat fukk lu dul da koo taxawee mooy asalaat suñ borom subhaanahu wa taala wàcce ko ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wala sax ci xeet yi ko jiitu woon wàcce waat ko ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam julli muy lu am solo loo xam ne gàtt na lool ci làmmiñ wi waaye yaatu na ci jëf ba tax nit ñi war koo mën a bàyyi xel rawatina waxtu wu tedd wi ñu joxe muy julli àjjuma àjjuma bokk ci sa sayyidil yawma di bis boo xam ne mooy sangu bis yëpp bis bu tedd bari yiw lool bara waxtu yuñ ciy dàkk di ci ñaan di ci sàkk jàpp ne buñ ci ñaanee suñu borom subhaanahu wa ta'aala dañu nangul suñu ñaan waxtu yooyu am ñu koy dàkk ci jamono yi ñu joxe julli gi mooy diggante ñaari xutbatee nii yi nga xam ne imaam dafay toog di ñaan am ñu koy dàkk tamit ci ginnaaw takkusaan am ñu koy dàkk ci yor yor waaye lu ci mën am rek dangay jàpp ne waxtu wi moom waxtu bis bi bis bi loo xam ne bis bu bari yiw la wun nangu ñaan fonk yi ko suñu borom subhaanahu wa taala fonk nat tax na ba fonk yi ngeen fonk julli ajjuma tax na alxuraan wax ci ne saa yu déggee ñi ne woote nañ jëm ci barab bu tedd ba di julli ji bokk na ci shariatu islamiya ñu bàyyi lépp loo xam ne lu nurook yaxandal la a yaxantu lu jëm ci am njaay walla al nuru ngir dayoo julli ajjuma ak màggaayam ak gëdd ko suñu borom subhanahu wa taala jox ak gëdd gi lislaam jox loolu moo tax borom xam-xam yi sax yëmut ci jaay rek waaye xiyaas nañ ci ne lépp lu jëm ci yëngu-yëngu àddina loo xam ne nit ki da cay fàggu bañ a nekk nurum njaay wala lu mel ne am faj wala lu mel noonu lu mën a doon saa yu déggee waxtu noddu wala waxtu ji ajjuma daa war a bàyyi lépp dem wujji woote suñu borom boobu yaa ayyuha allazina amanu iza nudiya li salaati min yawmi aljumaa fasaw ila zikrillahi wa shar'u albay'a zalika xayrun lakum in kuntum ta'lamun wa shar'u albay'a mooy xiyaas ci mbooleem loo xam ne dañ cey yëngu ci lu jëm ci kii liggéey moo xam maçon bi la moo xam day tabax moo xam menuisier bi la moo xam mécanicien bi la loo dégg rek ci loo xam ne da nga yëngu lu mel noonu ba dégg ñi woote julli ajjuma war nga koo dakkal ngir warmaal waxtu suñu borom woowu waaye ngir warmaal woote yàlla bu tedd boobu te mooy joxe julli ajjuma muy la am solo baax na ci bu ñëwee ci barab bi tamit ñu teewlu xam ne barab la boo xam ne yàlla ci néegam lañ koy dakkee bu nu waxee ne wa annal di lillaahi jàkk yàlla rek moom mooy bu ndikkee duñ fa woo lu du suñu borom subhaanahu wa la maanaam kii mën a toog di jàng alxuraan di jàng baax na ki yor kurusam di tudd yàlla baax na waaye na ngeen xam ne tamit ba jéggalu suñu borom tamit yàlla jéggal bakkaar yi ci barab yi mel nii lañ ko gën a baaxoo dàkkee kii fi ñëw tamit bu mënee yor kurusam di jéggalu yàlla baax na waaye yooyu yëpp nag loo ciy def ba imaam yi ci kaw minbar bi ci masab imaam Maalik dañoo bëgg nga bàyyi ko maanaam diglu imaam boobaa xataa nga jàngal xuraan sax li muy tedd tedd di wax yàlla ni ko noonu ak kii jàng xasida bu imaam xasee ba yéeg dañoo bëgg mu bàyyi loolu mu doon jàng teewlu imaam ndeg diglu xutba ba ndax xutba boobu missage la boo xam ne imaam dañu koy wax ngir ñu dégg ko man man koo jàpp man cee jàngee ba ëllëgee ñu mën koo jëriñoo moo tax ñu bëgg boobaa nga teewlu imaam kon loolu mat naa am xel baax bàyyi ba daana tamit ñi xam ne dañuy julli ci ci barab bi jàkk ji jàkk ji du fees ñuy jullee ci wet yi wala ñuy dàkk feneen loolu li fekk jàkk ji feesut li gën mooy nga dugg ci biir jumaa ji ba jumaa ji fees lu dul ngant masalan tey sàppi gi fi mu jokkaloo am ndoxong fi wala naaj wu tàng la wax mën na laa lor bu la neexee boobaa man ngaa julli ci ker gee waaye li fekk jàkk ji feesul moom léegi xel mooy nga julli ci jàkk ji sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne bokk na ci aw yiw sàppe yu tax toll ci kaw sàppe safan ala zafin bi xayri llahi masjida maanaam bu jàkk ji bu fee sàpp gi feesee nga soog a demaat ci beneen sàpp gi loolu aw yiw réere la te ku la gën a jege nag ca sàpp yeeg ci sa kanam ëpp la tiyaaba ci julli ga ndax loolu lépp njëkkantoo ci lu ba lu ba la loolu lu mat a xel la ni ko noonu tamit ñu bàyyeen xel tamit col ko ni col ci biir jumaa yi bu ñëwee barab boo ciy dem rawatina woote suñu borom subhaanahu wa taala war ngaa xoolaat sa col bu baax bañ a ko ci liggéeykaay ba rek wala barab ba nga yëngoo yóbbaale sa col ko yóbbaale fa ndax alxuraan sa wax na ne na ngeen taaru na ngeen taaru ci barabu jàkk yi barabu jullikaay yi kon loolu bi ci julli ajjuma lañ gën a tàmmee lu am am solo la lu mat a bàyyi xel la ci barab yi nga xam ne euh, julli jumaa dañ ko fiy def waaye ni ko noonu tamit ajjuma dafa am wàccaay boo xëyee rek nit ki war naa càng càngaayu mu ajjuma muy càngaay mooy càngaay yu set yu mel noonu ak lépp loo xam ne lu ñu tudd la ci bis ba ci aw yool ak li yoonal nit war na ko mën a bàyyi xel loolu lépp day dikkaat ci màgg julli ak taxawaay julli ak dëgër gi mu dëgër ci lislaam ak mbonk julli ajjuma da cee raw waaye wax naa leen julli moom sallallahu alayhi wa sallam daa wax ne asalaatu himaadu diin maanaam julli mooy ponk lislaam bi gën a màgg dañuy wax ne ku ko màgg ku ko rësal rësal nga diine sa na moom julli noonu la noonu la toll ci ci jullit bi suñu sëriñ Seexul Xadim radiyallahu anhu fonkum fonkoon julli moo tax ngeen dégg barab bu ne boo leen fa jaaree ñaan dégg ne fii sëñ bi julli woon na fi eh, sabbal na fi yàlla julli woon na barab bi yooyu yëpp ngir jàngal jullit yi ngir jàngal teel bi doje julli am ci lislaam kon daal loolu la ñu indi tey ci gàtt rek xam ne julli eh, ñu ponk la ci islam bu nu war a bàyyi xel ci farata ya ci sunna ya ci doob yi waaye ci lépp loo xam ne lu ko julli mën a mate la alxuraan foo dégg mu wax waa aqimu salaat wa aatu sakaat waaye julli tamit bu fekkee na jullit bi làmmoon ak moom ni nga ko diglee ci sàmmante moom ci barab ya ak ca sunna yàgg teew la ga ci diggante ko boromam alxuraan wax ne tanha anil fahshaa yi taxawaleen julli ndax julli day dindi ci yéen day far ci yéen ay ñawteef loolu bu ñu koy wax mooy xol boo xam ne tatamaanu bil xol bi lee loolu moo ci am solo mat naa bàyyi xel yàlla ñu suñu borom defal digg ak topp fekk ajum yi bëree bëri ñu dikkaatee ne gën a yaatal ponk julli insha allah ci ajum yi ci kanam wa aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakatuh alhamdulillahi alladi asraqa fi qulubi man saa min ibadihi anwaar al yaqin فنشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين نحمده تعالى ونشكره على إنعامه على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أن الدنيا وما فيها خيال وسراب وأن ما فوق التراب تراب fa qawmun usribat qulubuhum xubba dunya fa zuxilu an tazawudi lil axirati billadaati wal axyaar wa akafu ala wa akafu ala talabiha wa jamciha aanaa annahaar wa qawmun muliat qulubuhum bilmacaarifi wal asraar wa futixat minhum albasaair wal absaar فاستمعوا قوله تعالى إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي الدار القرار فتوجهت حممهم إلى إدامة الاستغفار وتسبيحه سبحانه وحمده بالعسي والإبكار ولازموا بيوت الله في أرضه لقوله في حديثه القدسي الحمد لله لا إله إلا هو لا نستعين إلا به ولا نعبد إلا إياه جل الله مولانا اختار نبينا محمدا واصطفاه وقد وفاه من حواس اختصاصه ما وفاه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وكل من والاه ما أقيمت الصلاة وقامت الأشياء بالله أما بعد فيا أيها الناس إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإذا صلحت صلح سائر عمله وإذا فسدت فسد سائر عمله فهي أم الطاعات وسيد القربات لا تقبل قربة إلا بعد قبولها ولا ينظر للعبد في فريضة ولا نافلة إلا بعد تمامها بفصولها فأعظم بها من عبادة يناجي العبد فيها مولاه وناهيك بها من عبادة تكفر ما تخلل بينها وبين أخفها من ذنوب العبد وخطاياه فأقيموها أعانكم الله في أزمانها المعينة وأوقافها ووفوها حقها من الاعتدال والطمأنينة وصححوا عقدها بالإخلاص والقصوع والسكينة ووفقنا الله وإياكم لطريقته المصلى وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين آمين فقلت ذا شكر وذا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل وببنيه وبناته معا ليشفعوا في سريعا نجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني غمر تائب مليم يا بر يا رحمن يا وكيل إني كسول نائم أكول يا مالكي يا خالق الأنام أمت هواي قللا منامي يا خالقي يا كامل الصفات لك اشتكيت كثرة الآفات وأنت ذو الجلال والإكرام فنجني وأولني مرامي منك أروم اليوم أن أكونا ممن أبوا لغيرك الركونا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 di ñaanal Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké mu yàgg fi lool te wér di ñaanal Serigne Modou mu yàgg fi lool te wér seen jataay bii nga xam ne mooy jataayu xamle jumaa yi ci dëkk bi ci ndigalu Cheikh Moussa Diakhaté Xaadimul Xaddim waaye ci ndigalu Serigne Mountakha Mbacké xalifa général kullu murit muy seen jataay xamle jumaa yi ci dëkk bi tey ñu ngi fii ci jumaa yi Serigne Abdou Latif Mbacké fii ci Saam ànd fi ak njabootu boppam waaye rawatina ay sëtam waaye rawatina ñi nga xam ne ay magi taalibeem lañ ñu nekk fii ci jumaa ji ku bëgg a xam dëgg-dëgg liggéeyub jumaa ji da ngay topp Saxum Touba TV seetub murid yi waaye akuk leeral ci njaboot gi nga xam ne ñoo fi nekkal sëriñ Abdou waaye ci njabootuk Serigne Abdou Latif bala ñu cee sori dañ ciy nuyu kenn ci njaboot gi muy sëriñ Serigne Khadim Diakhaté asalaamaaleykum di imam ci jumaa ji asalaamaaleykum wa sëriñ Serigne Khadim Diakhaté. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. tàmbalee ci auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala asrafil mursalin sayidina wa maulana muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi sawi ridwani wa tamkin ñoo ngi nuyu ñëpp di balu àq ñëpp di balu ñëpp di tontu ci laaj yi nga xam ne moom na waa télévision bi Saxmi TV bëgg laaj ci jumaa ji ñu joxe ci kamtalaay kàttan ci liñ ci xam kon sëriñ bi li leeral ci eh, cosaanul jumaa ji rek ci liñ ci xam nga xam ne bin sancee saam ca sanc bu njëkk ba muy mille neuf muy sanc Touba bu njëkk ba rek 1888 ñaari at lañ ca teg doog a doog a doog a gis jumaa ji doog a sanc fii ñaari at lañ ca teg kon loolu 1990 lay war a doon 88 mooy sanc Touba bu njëkk ba 90 moom lañ sanc fii ci biir sanc bi nag jumaa ji demal na ba raaf ba gisatuñ ci woon dara waaye benn pël bu ne wax Saam Bardi moo moo moo moo ko feeñalan ndax booba fii soror yi nekk tey jii ñaari ron yu mag ñoo fi nekkan bi ndikkee nag ci ñaari ron ci diggante ñaari ron yi ci la ñuy gas ba gis ay xeer yu xong ñu xam ne fii la jumaa ji nekkan fii la barab bi nekkan ci biir loolu lan laa di def ron yi nekkan fii ci lan ci lan ko xare bardaas bi ñu fi njëkk a def di fi jullee ci ron yooyu lan la jóge diirub loolu nag sanc guñ koon sanc goo xam ni sanc gu goog toog la ba 1976 la fi doo ngay tàmbali ñëw di ñëw ak a dem bu ñëwee dañ fiy bay bu bu fanaan jotee ñu dem fanaan yi daaru minam kër gi ca daalu minam sëñ Maam Mor Lappe nga xam ne mooy waajuru sëñ bi moo doonoon seen jëwrin moom bu jógee fii dem fanaan yi saamuk sëñ Baara Xuree ci sëñ Ceerno noonu lañ ko def ab diir bi sëñ bi ñëw fi ñu doog ko defar bardaas boobu di ci julli booba jàkkaarloo rek ci loolu la nekk nekk ci ba sëñ bi sanc si fi 1992 nag ci la sëñ Mourou Boussa Dieng ñëwee fii nga xam ne moom day def fépp foo xam ni sëñ Fallou def na fa ab liggéey laal na fa ci ab liggéey liggéey booba dana ko motti mottali loolu nag li ko waral mooy bi Mame Mor Diarra ñëwee ba nekk fii ci barab bi ba sëñ bi jox ko ci ndigal ne ko fii barab la muy jumaa ji tey la Mame Mor Diarra di sant. sëriñ Mor Soxna ab taawam ak së eh, ak sëriñ Fallou dama wax ne da sax sëñ Mor Soxna la ko sant waaye sëñ Fallou moo ne sëñ Maam Mor Jaara kat mat naa liggéeyal man ku dal ma dal sëñ Mor Soxna dal mu dal ndax booba la ne wan sëñ Maam sëñ Maam Mor Jaara am na ñeenti fay ko liggéeyal yàlla dina la fay yonent dina bay sëñ Tuubaa dina la fay te am na fay ñu ñu ñu ko muy barab boobu ñu feteñ ko ci ci ci jamono yooyu biñ demee ba. sëñ bi ñëw fi nag sëñ Abdou Latif nga xam ne boo fekk na mu raaf waaye bu sëñ Abdou ñëwee nag ban wanee lépp mu mu mu ñu daggalu ron yi def ko ab bardaas bardaas boobu ñu ci julli di ci julli di ci julli ba bardaas bi dañ ko kii woon nii rek amutoon mbaar ci kaw sax ci la ñuy julli ba 92 1992 la sëñ Mour bu sa jeg ñëw wàcce fi ay seng yu bare bari nar koo daaj seng waaye sëñ Abdou ci war ma ji ak baax ga mënu ko woon a wax ne ko euh, mënu ko woon a wax dara waaye ba mu demee rek dafa daal di yónni sëñ Jili Lappe mu sëñ Abdou Xaadir mi mu ne ko nag bu ma damaa sëñ damaa bëggan daal ñu def ko jumaa ñu jël seng yi te te def ko loo xam ni boo ëllëgee duutu gaaw a yàqu ba sëñ moodu sax toog na ab diir boo xam ne nii euh, ñëwaatu dan waaye sëñ Abdou ci war maam ak baaxam ak taalubeem àndaat ak sëñ Jiiri dem ba ca sëñ Moodu waxtaan jeeg moom ba sëñ Moodu nangoowaat yónnee fi ay taalube ay maçon maçon yi ràññee woon nañ ci ndax boobu loolu moom fi lu fekk ndax ñun 92 lañ fi ñëw ràññee woon nañ ci maçon ba ko jiite woon muy ku nu wax Thiaré Sarr moo ko jiite woon dëkk Kaolack di taalib sëñ Moodu bu si jeng ak ku ñuy wax Baye Cheikh Oumy moo jiite woon ministère yi ñu dikk daal di daaj seen plan laaj seen kii ta ñii di móol ñii di tabax booba dong yëpp a ñëwoon dong suñu móol yëpp dafa yebal nga xam dañ fa féetewoon ci biir kër gi nga xam dañ daan yalwaan yi ñu leen di toggalaale ñu leen di toggal ci lan tabax ba tabax bi raase ñu bàyyi noonu yàlla dogal bi sëñ Abdou jógee 94 sëñ Cheikh mi nga xam ne mooy jëwri nag nag woote waat liggéey bi ñu àggale ko muy jumaa jooju ñu àggale ko tabax ko ba àgg ñu jullee ko 2006 lañ ko ubbi biñ demaatee itam ba xam nga ab liggéey ginnaaw day soppi ko rek ñu dem ba jamono laajaat ko ñu ñu ñu ñu tojaat ko defaat ko nii ci ci li ma ci mën a misaal daal moom mooy loolu mooy cosaan li moom daal mooy mu ngi tàmbalee foofu ci ci Mamor Diarra ba agsi ci sëñ Ablatif ba agsi ci loxol sëñ Seex nii mu nekk ñu ñu ñu yore ko jumaa ji tam ni muy doxee ni jumaa yi dëkk bépp doxee rek lay doxee ni def ci jumaa yëpp tam lañ fi def muy euh, bu bu dinañ ci dinañ fi julli ajuma di fi julli waxtu yu juróom di fi def ay bayaan di fi def fulku ren ji tàmbali nañ ko di fi def ay waxtaan ay laylatul xadar yëpp fi lañ koy defee lu ñuy defee ci jumaa yi rek dinañ ko fi defe dinañ fi def waxtaani yu ñuy def fi lañ ko fi defee lépp lu ñuy def ci jumaa ju mag ji daal fi lañ koy defee te xam na ne jumaa ji moom sëriñ bi sëriñ Tuubaa ji boppam moo ko rëdd ci tànk boppam ndax moo moo ko rëdd ci tànk boppam ba noppi jox ci Mamor Diarra ndigal Mamor Diarra joxaat ci doomam jooju ndigal ak sëñ Fallou jumaa jooju nag moo dem ba agsi fi tey mu fekk nu ñun ñii yàlla baaxee na mu fekk nu fi ban bokk ci ñi ñi fi ñi fi ñi fi ñi fi daan jiite ñi fi jiite ba tey euh, mën na ne bi fi sëñ Abdou yi nekk sax booba sëñ Modou Mbacke mii fi toogal léegi bu waxtu julli masaa jot muy jàkk ji nekkan foofu booba sëñ Abdou tisbaar ak tak ak takkusaan ah tisbaar ak takkusaan dawul waaye timis ak gee fi la daan jullee waaye waxtu yooyu ji des boobu jumaa ji dafa tàng ba ndax kii wulu ko woon mënoo fee jullee waaye waxtu yi des yëpp moom moo ko daan jiite bu fi nekkul nag sëñ Modou jiite bu fi nekkul man maa daan jiite ci jamono yooyu jamono yi 92 jëm eh, daal ci jamono yooyu la noonu daal la liñ ci jot a eh, mën a wax loolu la loolu la noonu la demee li ci des nag bu ñu liggéey ci sëriñ Maam Mor mi wala sëriñ Moussa lay luñ ciy laajaat tam te war na koo laaj mën ko laaj ñu tontu incha allah. léegi loolu lépp daan koo tudde ay ay saam rek waaye benn saam la Maam Mor Diarra fii la nekkoon ci biir kër gi téeméeri rakkaay yi nga daan dégg ñu naan fii ko daan naafile fii la ko daan naafile ci biir kër gi mooy néeg boobu ci biir. Euh, bu nee saamuk sëñ Baara Xuree ji ne saamuk sëñ Ablaye Jaxate biir kër sëñ Ablaye Jaxate ci saam gii la bokk. ndax danoo natt saam gi sëñ Abdou nattal leen fa jox leen fa lan fa war a am ñu naan saam jaxate saamu sëñ Baara Xurija sëñ ma roqo yu busa moo fi nekkan fii yàgg na bi mu fi jógee ci liñ ma nettali ci taarix dañ ne moom bi mu fiy nekk booba danaan def ak njabootam daan laaxan maanaam ku mu fi am rek mu nelaw ñu ne ko mu xam ne daal fii du barabam mu doog fay jóge dem saam gee sëñ ma roqoy bu sa nag yaakaar naa mooy bàyyi sëñ bas saam mas naa toog toogoon na xalifa Maam Jaara sëñ ma roqoy bu moom bi mu fi jógee nag sëñ Mor Boussa bi fi jógee nag la la la dem saam gee sanj fa ba fa jógee sëñ Baara Xoloji sanj ko moo tax ñu naan saamuk sëñ Baara Xoloji waaye saam yi moom benn ndax maam sa Maam Mor Jaara li tàmbalee Mbàkke ba Touba Fall ba Mesere lépp ci ak moomeelam la lépp moo ko gor bu nee saam nag ñetti ñetti saam looloo tax ñu koy xàjjale waaye saam moom bu ñuy wax saam fii moo tax ñuy wax saam ndax fii la sëñ Tuubaa rëdd jumaa ci fii moom da koo rëddul boppam joxe ci ndigal jumaay Tuubaa da koo da joxe ndigalul boppam moom da ko koo joxe ndigal jóge fi fii nag moom moo ko rëddal boppam nekk fi jamono yooyu ñu koy wër boo fii la nekk. ba mooy saam boobu ñu lay wax naan la saam bari di la moom moo feeñalal sëñ bi boobu fii la nekk loolu nag moo tax ñu naan ñetti saam waaye genn saam gi moo jur ñetti saam yooyu yëpp moo tax rek ñu naan saamu sëñ Bara Xuréja saamu sëñ Abdoulaye Jaxate waaye genn saam la ndax sëñ Maam Mor Jaara fii la dëkkan li mu doon def fii la ko doon defee sëñ Fàllu fii la jànge xam-xam fii la nekkan mook sëñ Mor Soxna waaw ci sama suñu biir bi mooy biir kër gi nii mooy boo demee ci biir nii am na néegu kaaskari booy seen nee boobu ay tiwil la woon ci la Maam moo Jaara dëkk woon bi fi sëñ Abdu ñëwee la ko def néegu ñax bi sëñ Jeex ñëwee la ko defaat noonu ab waaye ba tey tiwil ya eh, ñu ngi barkeelu ndax eh, ci ci leen fondation nee bi ci la bokk noonu la demee diggante kër gi ak kër gi ca Daaru Minam maam kër gi ak jumaa ja wala kër gi ak Daaru Minam rek 7 kilomètres la boo koy xool 7 kilomètres la waaw mu jumaa ji ak daaru minam kër gi ndax këru sëñ Abdou gi daaru minam moo ko sëñ Basiru ñoo sëñ Basiru te sëñ ak jumaa ja kon xam bu dee un kilomètre wala deux daal boo ko doon am jumaa ji ak ak jumaa jee 8 kilomètres lay doon waaw biñ ba biñ ko seetee buntu kër bii ba ca buntu kër daaru mel ni ba 7 kilomètres la waaw yoon yi moom benn la moom boo jógee jumaa ja moom benn yoon la yoon waa ngi moo jógee jumaa ñëw ba ci jàkk Sëriñ Seex Saaliw nga ñëw ba ci mbaar yi ba ñëw ba ci mbaar yi ba fii nga wàcc ñëw jumaa ji ba léegi yéen a ngi ànd ak Saxum Touba TV seetu Mouride fii ci jumaa Sëriñ Abdou Latif waaw mi mel ni ñu ngi fekk koo xam ne mi ngi naan ko sëñ mamoor Mbacke sëñ mamoor li nga xam ne moom lañ la bëgg a dolli ci laaj bi mooy ndax jumaa ji jullik àjjuma gi dañ ko tijji rek jumaa ji ànd ak maam mu ànd ak jullik àjjuma gi continué wala jullik àjjuma gi maam dañoo dem ba ci biir rek ñu boole ko ci. mbokk yi seetaan seen télévision Saxum Touba TV ñu ngi leen di nuyu leen siyaare di nuyu mbokk yi nga xam ne ñoo ñu fekk ci barab bi di nuyu sëñ Moussa Jaxate mi jëriñ ji ak mbokk mi ñu yebal ngi leen nuyu nag ci. ñuy turu sëriñ Cheikh Mbacke mu sëriñ Abdou Latif mi nga xam ne mooy kilifa kër gi waaye ci turu jëwriñam sëriñ Jili Mbacke ak mbokk yi nga xam ne ñoo ne ci barab bi yëpp te yor liggéey bi di fi taxaw taxawaay liggéey bi diine sëñ Baara Jaxat imaam mi doon wax ak sëñ Moustapha am mi nga xam ne ñoom la sëñ bi teg liggéey jumaa ji lépp ci wàllu lu fi taxaw ci diine ñoo ko yor ñoo ngi leen nuyu seen tur waaye ci jot ci kilifa jataay bi sëñ Cheikh Mbacke mi toog moom sëñ Namor la petit suñu mag mooy suñu kilifa moom it ñu ngi nuyu ci turam ak mbokk yi nga xam ne ñu ngi toog ñëpp ñu ànd ak sëñ Cheikh Mbacke mi moom it bokk ci ñi taxawee nodd gi ak sëñ Cheikhouna Guèye ak sëñ Bàcc mi nga xam ne ban tijjeeku jàkk ji yàgg di suñu waajur moom jàkk ci la bokk di nodd ak bàyyi ndox mi xam ne moom it ñi taxawee ajjuma ji ci ji lépp lu fi jëm ci wàllu lu yéwénal sàpp yàgg la ci moom ñu ko taxawee kon ñoo ñoo ànd jataay bi nii sëñ xaadim sëñ xaadim taal mi ñu mbokkum taal bi moo xam ne boo teewee di leen nuyu daal di leen siyaar bu baax comme ni nga waxee sa laaj Euh, comme li suñ baar jaxate wax rek daanaka doy na sëkk ndax moom moom moo ñu gën a xam barab bi ndax dafay nekkoon borom démb ba tey jii wax yàlla ñu ànd mu ne ay ay doomam ak i sëtam mën naa wax ne ñun ñi lu ci ñun sax jaar nañ ci loxoom ci barab bi ndax jiite ji rek waaye moo fi nekkoon daan jàngale alxuraan jeeg lépp taxawaay ba bu rafet jamono suñu bëti ba léegi waaye sa laaj bi moom mën na seen tontu euh, jumaa ji moom ni ko suñu baara waxee ci tijji ko njëkk gën a 2006 moom ba ban ko tijjee ba léegi moom man xamu mosumaa xam ajjuma gu ñëw julliñu fa ajjuma waaw xataa sax bi ñu demee ba di ko yeesalaat nii ndax yeesal ñaareel gi bu ñu koy yeesal teewut dañoo liggéeyoon barab bi nga jàkkaaroon ma jàkkee seng jee sëñ bi dafa defoon ngir bañ mbooloo maanaam ñàkk taxaw la juma ji ñu penc ma ne tolli penc xam nga ci sariat islam euh, mbooloo moom ci masam ñoom bu matee fukki nit ak ñaar rek ajjuma war na leen loolu sëñ bi bañoon nag ñu faat faat waxtu woo moo taxoon ne buñ xaar liggéey bi àgg nañ def daaj daaj lu mel nii nit ñi dafa jullee kon daanaka lu commencé de ñaar fukkat yi daal mën nga wax ñaar fukkat yi ba léegi moom ñu fi jullee ji moom waaw 2006 ba léegi aj bu jot comme ni ko suñu baar waxee danañ jox ju farata suñu borom ci jàkk ji ànd ko ñu ko a dal moom mi na naka jëkk ban ko tijjee moo nekkoon imam bi di fi jiite ànd ko ànd ko mbokk yi fi nekkoon nee ba ci ji mu jamono suñu Moustapha Mbacké mi moom it ñëwaat wéttali ko ci liggéey bi di ko jàppale xam ne léeg-léeg ñooy léegi ñooy ayloo ajuma ji bis yi ba suñu baar a jiitee bis yi moo ko moo koy jite waaw loolu nga ko laajoon ci njëlbeen yëpp daa jumaa ji moom comme ni jumaa ji tubaab doxee rek jumaa loo xam ne ci eh, ni bi doxee ci jumaa yëpp noonu lay doxee loo loo dégg ci jumaa li mu ci def ci taxawaay jumaa rek ji ña ngi ci seen waar xam ne jumaa yi suñu tubaab lañ ko jàppee am na tim xaas yoo xam ne man jàpp naa ne yu kam ci tubaab bariwut ndax bi dee jumaa yi tubaab mën ngaa wax ne sëñ bi daa joxe ndigal ñu fay jullee bi dee daaru jumaa yi daaru xudus da ngay dégg ne fa la suñu tubaab dëggoon xal waa waaye jumaa ji suñu Tuubaa rëdd ci dàll moom mosuma ko dégg ci Tuubaa julli ji waaw ci Tuubaa wala feneen sax ci réew mi waaye bi ne Tuubaa moom fii moom barab bi ngay dégg jumaa yi suñu bëlati ne sëñ bee ko xayma moo suñu dàll mu tedd woon rëdd ko wax barab la waaw ni ko suñu baara waxee tamit noonu la demee bi mu ko rëddee ba noppi dafa tombé booba jamono yooyu bi fi moom ba borom saam ñëwaatee yo ndax da ko daat dem Mamour Jaar delluwaat Mbàkke ba jëm jamono borom saam ñëwaat fi bi fi ñëwaatee toll na sëñ Fallu ne fi di jàng ak sëñ Mor Soxna sëñ sëñ sëñ sëñ bi jox leen digal ñu sàkket ko sëñ ko sëñ Bara sëñ Mor Soxna ak sëñ Fallu ñoo fete woon yoonu njëkk ba euh, mu baaxoo xam rek ab dong bi liggéey seen daaram lu ñu ciy liggéey rek si kër fi jógee ba jimmi jamono ba léegi li ko Maamoor Jaara sancee woon moo fi nekk mooy jàng ak jàngale ak liggéey daara ji Moustapha yi daara ji Maamoor Jaara ji fi nekkoon sëñ Fallu jànge fi mag ñi bari jànge fi daara jooju moo ne ci kër gi ba léegi boo duggee ci biir kër gi mbaar mi jàngal boo demee ci ginnaaw kër gi sëñ Moussa mi lépp xam ñu ngi ko jàng ba sëñ Baara Jaxate bi sa gën naa yaatu boo demee këram fi naan daara alxuraan la kër yi ko wër yëpp ay daara alxuraan lañ kon moo moo sanc moo sanc barab bi mooy cosaan bi moo luñ dundee barab bi ñi fi nekkoon tamit àndoon ak sëñ bi wétlu sëñ bi jamono sëñ Mor Jaare boo ñëwee ci penc mi da xam ne loolu woy ndax sëñ Abdou dëgg la moo ko yeesal 1977 la fi ñëw sanc sancaat barab bi di ko yeesal comme ni ko sëñ Baara waxee dong yi dem fanaan fanaan bay ba nee na ba 86 defar kër gi ba toog waaw ah, fas yéene toog am na suñu maam ñu baax ñu ne woon fii ci kër gi mas na bu sa jaxate yàlla na ko yàlla yërëm nes na nee na nee na yoon ne ñu naan ko ah ci dara maa ngi ñibbi saam waaw ah, ñoom ña lappe ñu biseeguñ waaye nee na booba nee ko sa sa yoon wi de mu wut naa yoon yi nga demee mu la ah, dama ci nëbbatu dara damay damay damay ñibbi ma dénk barab yoon woo na ci la ñëwee ne 86 ngir ji ma toog toog ci barab bi ngir continuer liggéey Maam Jaara bi fi nekkoon bi boo ñëwee ci barab bi da xam ne patrimoine la fekkoon borom boo xam ne da ko continuer mooy penc mi bi mu daa wax ne lii ndoon lañu ma dénk la moom ko sama sama doom moom sama jor moom ko wàkk Maam Jaara ko kon képp koo xam ne bokk nga ci Maam Jaara dinaa la daggal nga dëkk boo gisee seen ba ay doomam mu soog leen dagal ci ginnaawam sëñ Cheikh mii taawam di di xale am këram mi ci ginnaaw mi ci gën a ginnaaw kër gi te mënoon naa uf penc mi waaye loolu lépp ak la ba léegi wax di yàlla jugu fi mooy xeetu jàng ak ak doxin woowu noonu sëñ Baara Jaxate mi ak sëñ ci armée xam ne sëñ Tuubaa ko rëdd Mamoor Jaara bàyyi na fi jàngale fi leen ko denc muy barab bii waaw te loolu bëri bëri bu bëri ci Touba kon denc sa penc moom tawfiix yu bëri daa daje ci moom ndono loo xam ne say mag mënoon nañu faa nekk ndax ni ko sëñ Baara waxee sëñ Mor Bousso Khourédia bi fi nekkee jóge fi sëñ Baara Khourédia jóge fi ginnaaw sëñ Baara Khourédia mën na ñaar fukki at wala kopp mosoo fee ñëw diggante boobu lu na xajoon na fi ku ne mën na fee nekk kon boobu tawfiix la sëñ Ibrahima di ñëw féetoo barab bi waaye ku ne mën na fee nekk ndax boobu bari nañu ko mag ci njaboot Mamour Diarra gi te néewuñu fi boobu bari ab gent kase la ab gent kase la woon mu wàcc liggéey sëñ Saliou joxe ndigal nañ ko denc fii sëñ Mourtala Xaadim Rasul moo ko taxaw waxu taxaw ci barab yi ànd koog njabootu Sëriñ Tuubaa gépp ak kilifa yi fi nekkoon waaw waxtu bëccëgu naaju tàng lañ ko denc fi nii fii fii ci barab bi kon yooyu yëpp barab bi bu ñu daal lépp loo xam ne ngëneel la ak taarix ak lu ñu sàkku ci barab bi baax rek def siyaar ji mi ngi sàmm moom boo doxee tuuti yi ci ginnaaw kër gi ku ñu wax sëñ Mbàkke Ramata barab boo ngi gis moo lañ fi denc sëñ Mbàkke Ramata bokkoon ci magi Mamour Jaare borom xam-xam la woon bak def ko sosoon rek ci borom saam la ñuy wax mbas mbasu njëkk yi a wàcc liggéey fa waaye mooy mooy mooy xaru bi mooy fii ci déem gi déem gi waaw ci biir kër gi la woon sax dañuy wax ne boobu ci biir kër a yaatu nii moom lañu denc fii nii ak njabootam ñu ngi mbàkkee bi Tuubaa de fépp baax waaye fii ci la a wax nuyu ñi nga xam ne yéen a ñuy seetaan Saxum Touba TV seetu bu murit yi ci ndigal suñu Musaa Jaxate xaadimul xadim ci xamle jumaa tey jii ñu ngi fii ci jumaa yi suñu Abdou Latif Mbàkke ànd nañu ak ci jumaa ji waaye ànd ak yéen ci barab bi nga xam ne fi la Maam Jaara Mbàkke nekkoon bala ñu ci sori am na koo xam ne moom nekkoon na ci barab bi ñu koy wax sëriñ Xaadim sëriñ Baara Jaxate mu leeral na ci pàkk bi nga xam ne Mame Mor Diarra nekkoon na fi nga xam ne ak dundam lépp fii la ko def sëriñ Bara salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa kon liñ la rek moom lañ lay gën a feddalil barab bi daa bokk ci barab bi Sëriñ Tuubaa bokk ci barab bi Mame jaara yi nga xam ne néeg bi ñu taxaw tey jii fi la nekkan daan fi naa fi la téeméeri rakkaay bi mu fi jógee itam doomam ji wóotu ko muy sëriñ Abdou euh, moom tam nekk na fi lu yàgg nekk na fi 86 googu ñu lay wax ba 1994 suñ borom doog ko fee jële waaye nekk gi mu nekkan fii tam comme leen leen wax fee jumaa ji rek dundal diine ji ak lislaam ji rek la nekkee woon ndax man yaakaar naa fii nii ñëw naa fi fi laa doon lu bare bari ci ay téere moom moom sëriñ bi lu bare bari ci ay téere moom sëriñ bi moom ma ko daan jàngal fii boobu loolu bi fii la daan toog yor ab ma yor sama téere mu di ma jàngal ma jàngal téere yi sëriñ Tuubaa yi ba ci risaala te doo ko tàmbali dab ma doog a àggale sama xam-xam boobu tam na man maa nekk ci biir daara ji yore daara alxuraan ji daan fi lu ko jiitu tam am na ñu ma fi jiitu ñu fi doon jàngale ba ñooña demee tam fekk ma ñëw muy 92 jooju ma lay wax laa fi tàmbali woon jàngale ba suñ jonni tey jii ma léegi sëriñ bi soppi sama liggéey ma waaye teewut damaa yoraat daara nekk fii lépp nekk ci biir liggéey bi maag sëriñ Moustapha mi ñu seq liggéey bi lépp moom tam muy jàmbaar yoo xam ni wax dëgg yàlla eh, kenn xamu ko ci lu dul jàng ak jàngale Eh, fi ñu ko war a jaarale lépp itam fépp itam jaarale leen ko jàng na fan war a jàng alxuraan jàng xam-xam jóge fi dem Murtani jàng fa ay at doog a ñibbisi fii ba tuwarkal la ba bokk na ci ñi ñi ñi nga xam ni xam-xam tey jii bu nee saam ñi ñi fi ñi fi gën a ràññiku ci xam-xam bokk na ci ba ci école bi bu sëñ Murtala bi nga xam ne sëñ Murtala mooy maamam mooy jur waajuram bu jigéen maa ngi fay joxe ay dars boole kook di jàngale alxuraan ak di jàngale xam-xam téere boo fa yóbbu mu jàngal la ko moom daaraam a ngi noonu fi ngeen njëkkee noonu ñoo ñu seq lu baree bari nag muy ku neex a àndal eh, ndax sëriñ bi bi mu ñu boolee lii rek a tax mu boole ñu man tam bi ma fi sëriñ bi indi booba metti woon na waaye nag mbir mu ne da ngay seet ña fa nekkan metti woon yoran nga nga nga adapté wu ca metti booba mm-hmm. ndax fenn neexut te dara tam neexut ci lu lu jëm ci yàlla ndax yàlla kenn mënu ko am ci ay ay caaxaan wala nga am ko ci am fo moo tax fii wax dëgg yàlla metti wan na lool waaye metti ga tey jii jur na lu jural na lu bare bare loolu nag ñu sant yàlla bu baax a baax ñu xam ne fii daal moom barab la ci barab yi la bokk ni ko sëñ Mamour waxee rek fépp fu ni siyaare ci dëkk bi muy bayti muy jumaaja fépp fu ni siyaare rek fii ci barab yooyu ñuy siyaare ñooy tolloo ay daraja ndax sëriñ bi moom lu laal bokkut ak lu mu laalut ndax aman am naa sama benn xarit boo xam ni bi ma ko waxee ne ko jumaa ji sëñ Tuubaa moo ko rëdd ci tànk boppam waxal na ma ci ay kii e, yoo xam ne ndax dana dafay ñëw daane man de dam sama tànk day met fu ne yóbbu naa ko fa waaye nag dinaa ci fas si jumaa jooju ndax mu ndax mu wér waaye ba mu fi dikkee dugg ci ñetti bunt yëpp génn ba mu demee ab diir la ma woone ma tànk ba yëgatuma ci dara loolu nag lu sëñ tubaa laal ak lu mu laal dana bokkut lu mu rëdd ak lu mu rëdd bokkunu moo tax fii moom daa bokk ci barab yi nii ngeen def tam ñu ngi ci sant yàlla bu baax ndax wane gi nit ñi xam ko tam baax na ci lool ba nit ñi mën cee jariñu du caagi ne dañ koy woote naan ñëw leen nangam waaye nag lu baax fu mu nekk nit ña war koo xam ba di fa sàkku ji barke te fii ku fi sàkku barke di nga ko am ndax ñi fi doon tarbiyewu sëñ bi lan àndalal di tarbiya wu kenn ku ne ba mu la wàccee la nga doon def xam nga ne sab liggéey nangu la kon nag ñoo ngi sant yàlla bu baax di leen sant bu baax tam di sant sëñ Moustapha Diakhaté moom bu baax lii muy def moom bu baax la na na ko jëmale kanam suñu borom def ba mu am télévision boppam. ci barke Serigne Touba di ñaanal ñëpp di siyaare ñëpp di balu ak ñëpp di balu ak ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullah